ne bi ñu xamee ne tey imam Ndaw dafay ñëw mhm. dafa kenn koo xam ne vraiment ci fans wal fa jëri yi la bokk alors ñu koy wax alaaji Katim Cissé alaaji Katim Cissé nee nañu comme que nag imam Ndaw mooy ñëw mhm. mu defaral ko benn cadeau boo xam ne surprise la alors gis nga alaaji Katim Cissé mi ngi nii vraiment numéro téléphone am 77 930 37 97 donc mu defal ko léegi nag dañ koy jox imam Ndaw buñ ko wanee di ngeen xam moom fi mu génn fan la lu tax waaye duñ ko wax damay ñëw ci weti imam Ndaw ñu dindi ko parce que lii aussi dafa dafa neex bi mu xamee ne yow la daal la daal di defar euh, affaire bi voilà mu ngoog ma ne ko mu xam naa nag fi ne ñëpp ngi taxaw xaaral ma yéexamtal waay <laughs> démb de benn waaye damay yéexamtal bu bind ci net bi bi tey yaa soof <laughs> ma ne ko yaa ma gën a soof <laughs> gis ngeen kon mu ngoog. ndeysaan macha allah voilà allah. macha allah mu ngi nii. jërëjëf macha allah donc nee na dafa gis kóllëre gi nga amoon ak borom kër gi di Alaaji Sidi Lamine Niass radiallahu taala anhu yàlla na ko yàlla yërëm moo tax mu def li gis nga salon d'honneur bi mu def ko def la def Alaaji Sidi Lamine ñas ci wet gi mu nee na cadeau bi moom moo la ko jox ci xol bu sedd guy ndax kóllëre gi nga amoon ak borom kër gi mu ngoog mu ngoog macha allah nañ ko nañ ko teg nii sa wet mu ngoog nag voilà a barkeel liggéeyam mu ngoog mu ngoog mu ngoog c'est très joli voilà wala ma dugalal la ko nii mu dugg bu baax voilà ngoog barakallahu kon nag euh, nii la demee yaakaar naa ne dañuy sóobu nag ci li nga xam ne moom moo di moom moo di moom moo di moo di waxtaan wi mhm. ñu soobu ci waxtaan wi nag actuellement euh, kon mbokk téléspectateurs yi tàmbali nañu li nga xam ne moo di waxtaan wi euh, dalal nag imam Ndaw dalal ki nga xam ne itam moom moo di dàmbooj ñëpp a ngi toog di xaar ñu ñu ubbi yëf yi Ndiaye yaakaar naa ne lenge yi bala ñu la koy jox nga bàyyi ñu rek ñun ñu xuus tuuti ak ak imam ndax nag yàgg na ñuy gis imaam yàgg na aussi euh, muy def information ah waaye nit ñi xëy na bëgg na ñoo xam kan mooy imaam Ndao fan la ganee àdduna fan la jaar ci njàngam ah, imaam loolu lañ lay njëkk a laaj ngir nit ñi seetaan dañoo bëgg a xam kan mooy imaam Ndao alhamdulilahi rabbil alamin imam Ndao euh, mu ngi gënee àdduna dëkk bu ñuy wax Ndaalaan Malick Noor. Ndaanaan. Ndaalaan Malick mu ngi ci arrondissement Gandiaye euh, commune bu Njëbel mhm. mu ngi gane àdduna 1960 1967 ñu yóbbu ñu kokki ñu ñu dali euh, jàngum alquran ci kilifa gu mag muy Serigne Ahmad Sakhir Lo na ko yàlla yërëm yokk ay leeram amiin amiin amiin lañ dalee baa miim ci loxoom mhm. ba fa lañ mokkalee alquran alhamdulilahi rabbil alamin jógee fa ñu yóbbuwaat ñu beneen daara bu ñu tuddee Cheikh Ahmed Sakhir Cheikh Ahmed euh, Cheikh Mor Mbaye Cissé mm-hmm. bu jaareem Diourbel ñu ngi ñu fa yóbbu 1972 euh, foofa lañ fa doon def mooy beqi euh, li ñuy tuddee beqi ci jamono booba mm-hmm. ngay bind alquran ci àll woo di ko bind ko bindaat ba sëriñ bi wóolu la jox lay këyit ne la demal nga bind alquran te doo doo doo ko doo xool fenn doo ko xool gannaaw buñ bindee kaamil nag la ñu wéy juru eh, yóbbuwaat ci kër ga dalal ñu foofa ci téere yu ndaw yi 1975 76 77 78 79 mu génn àdduna ñu door laxas nag dem ci daara yi booba mat nañu waxambaane daara yi jaar nañ ci fu mel ni ki sanc jaamal ci loxol Serigne Ibrahima sëfi jógee fa ñëwaat kaw Kaolack jàngalekat ya fa nekk lu mel ni que ñoom maxtar Diagne ak Kulim Dioum ñoom ñëpp fa la jàng nañ ci seeni loxo kër ba kër yi gële ca ëttu pas yi jaar nañ fa moom itam ci sëñ Daara Omar Cissé mottalee fa suñu njàngum fiqhu jógewaat fa encore dem dëkk bu ñuy tuddee Makka guy fa lañ defee mottalee suñu grammaire ak rhétorique mhm. waroon a jël poésie yàlla def daara jooja amoon tuuti euh, problème ci fànn googu loolu moo ñu yóbboon dëkk bu ñuy wax Caamen Kaccot fa lañ defee poésie jógee fa nag def concours boo xam ne sous région bi ñoo ko doon bokk dañu euh, condition principale ba mooy nanga nga am niveau baccalauréat na nga mokkal alquranul karim yàlla def ñu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo jàll loolu ñu yóbbu woon Nouakchott euh, ñu def fa sunu étude ci institut bu ñu tuddee institut des études coraniques ba ñu fa noppee la ñu ñibbi si sanc daara depuis 1987. lañ ubbi daara ji. année boobu ci la ñu euh, takk soxna fa tabarakallah ubbi daara ji fan. daara ji ñu ngi ko ubbi woon ci dëkk bu suñu suñu dëkku cosaan. ndax daara ji suñu waajur moo ko yoroon. Mhm. dañoo ñëw rek dekkalaat ko. Mhm. bi ñu demee nag ba daara ji xaw a rëy mm, xajatul ci dëkk bi loolu moo tax ñu tuxu kaw nag. Mhm. actuellement daara jooju ci lay nekk def nañ nag ay concours international ci fu mel ni kii moom la kalaar bi saoudia ak ay prix yoo xam ne yu yu yu baax la. Hmm. tabarakallah mais jamono yi ngeen bi ngay dem kokki hmm. xam nga dañu dégg ne kokki eh, xëy na léegi neex na damay dégg magu daara yi jaar kokki yëpp dañ bu ma waxtaanee ak ñoom dañ naan ma kokki léegi neex na. jamono yooyu ngay dem foofu xanaa boobu moo taxoon ñu naan daaraay kokki boobu la taroon boobu la métti woon. waaw na trop ndax boobu dëkk bi rëyut sëriñ bi amul ay moyens. Hmm. lépp ñun ñoo ko doon tobbi di ji di bay ak sunuy loxo mm-hmm. ba ba muy ñoree ñu yenn waat ko ci sunuy bopp di ci daara ji loolu lañ doon dundee mm-hmm. euh, yenn heure yi nga xam ne comme lu mel ni ki yelwaanum guddi boobu aaye guñ ko kokki mm-hmm. dañ doon yelwaan guddi yelwaan reer ñëw fa la euh, booba kokki meloon na neneen fa tabarakallah ceeb manqué ay mooy waaye léegi nag sant yàlla lépp tabarkalla ndax dund nga fa loo xam ne nii doo ko fàtte bu kokki waaw dañuy wax ne lañ fa dund lépp bànneex la mhm. ndax euh, boo dee gune sax booy jaar ci circonstances yooyu da ngay dem ba ci kanam nga naan waaw est-ce que lii dana jeex waaye boo demee ba passé ko mhm. ci ngay door a xam euh, fañ la jaarale fan la mhm. muy sëriñ Ahmad Saxiir Lo yàlla yàlla yokk ay leeram mm. suñ borom da ko def muy muy jabootee njabootu su région bi yëpp. Mm-hmm. moo tax daal foofu moom suñu mm, souvenir yëpp sant yàlla la ak sant ko ak di ko ñaanal. alhamdulilah yàlla ko yàlla jëmale kanam. amiin yaa rabbi amiin yaa ci gàttal loolu mooy parcours bi. gànjaay bi ñu fi wax mooy gànjaay bu kaw Kaolack. waaw gànjaay bi ci wetu Kaolack. parce que Saint-Louis itam dafa am beneen gànjaay bu nekk booru Ross Béthio. ah waaw waaw gars dañu faral di jaaw jaawale ñaar yooyu. gànjaay bu Kaolack la. Mm-hmm. kon dëkk yi nga tukki ci àdduna bi daal xaw naa takk tuuti lim bi. yan nga ñu ci mën a tuddal bu weesoo yi nga ciy wax léegi. Euh, maanaam ñu tukki. wala ci biir moo xam ci wàllum jàng wala ci benn fànn bu mënti doon. njàng moom su ma yeboo ne Mauritanie rek lañ ci defee suñu formation. Mhm. fu mel ni Saoudi ay concours euh, lañ fa def ay concours yoo xam ne concours international ci wàllu jàng alquran tajwid ko comme ni ngeen gisee woon léegi seeni ko di def. Mhm. booba mam la kalaar bi Saoudi ñoo ko doon def. Mhm. Euh, bu sous région bi dajee seen. Euh, sélection suñ noppee ñooñu dañ leen di envoyé waat mamlaka Arabia Saoudia ci wàllu jàng alquran tajwid ko tafsir ko loolu concours moo amoon nekkul jàng rek mais koy jàng tajwid ko tafsir ko imaam ay waajuram ci ban tarixa lañu lañu bokkoon waaw sunu waajur la woon ci tarixa bu ñuy tuddee tarixa tijaaniya gis nga borom kër gi mm-hmm. euh, waajuram yal na yàlla yokk ay leeram muy te maam Khalifa Niass. ak suñu waajur nii lañ defoon. kóllëre gu yàgg la. moom mooy euh, muqaddam bi nga xam ne ci moom la suñu waajur njëkk a jëlee tariqa tijaaniya gannaaw bu mu faatoo mu jokkalook euh, famille Serif yéen bi nekk fii ci Pikine. muy njabootu Serif Mamadul Habib. tey tournée boobu muy def ci Saloum jur wi moo moo ko doon jiite. moo ko moo ko dugal Saloum. ndax imaam ci tariqa boobu la nekk ba léegi wala dafa. exactement ñun nag bi ñu jàngee ba ñëw. Euh, dañu def suñu bopp ay maanaam rassembleur. Mhm. dañu am benn mission boo xam ne dañ ko sas suñu bopp. Mhm. mooy fexe ba fédéré gën a boole tariqa yeeg mouvement islamique yeeg yëpp. moo tax fi mu ne man presque dangay ngay gis dama neutre. Mhm. mouvement yëpp damay jëflanteeg ñoom tariqa yëpp damay jëflanteeg ñoom. mais am na ci benn tarixa boo xam ne xanaa peut-être foofu nga foofu nga jokk wala waaw tarixa boobu mooy tariqatu rasulillah bi nga xam ne ci la ñëpp jokk sallallahu alayhi wa sallam te imaam dafa wax lu solo sànq <laughs> mm-hmm. euh, ci euh, daarawu kokki mm-hmm. nga wax ko ko euh, neex na neex na mm-hmm. léegi c'est vrai parce que particularité wu daara wu kokki mooy déjà daara bu rëy la kokki ko xam-xam ne dëkku jàng alxuraan la mais kokki dafa former ay imam Mm-hmm. mel na Imaam Ndaw bi mais dafa former également beaucoup d'hommes d'affaires mm-hmm. ñooy dégg ci réew mi ñu ne ci ay secteurs mm-hmm. di fa def ay résultats ci daara kook googu la leen former et que ñoom bokk nañ ci ñi tax kokki ma ñu wax ñuy wax ne kokki dafa neex léegi parce que ñoom ñooy dimbali daara ji parce chaque année am na benn ndaje bu mag mu ñu def muy ndaje euh, ndajewulee kii de Kokila ñoom ñëpp dañ fay dajee ku nekk indi la nga am ñu boole di dundal daara ji mën nañ cee tudd ay tur léegi mais mais mais jaru ko ah loolu daal moo tax ñu naan kokki neex na léegi et c'est important parce que souvent dañ jàpp ne suñu daaree ay imam rek la ñuy Mhm. je le dis et je le répète parmi les plus grands hommes d'affaires de ce pays am na ñoo xam ne kokki moo leen formé moo leen def li ñu nekk mhm. bëri lool voilà bëri lool fa tabarakallah mhm. ñu mën ci tudd ñu bëri macha allah eh, sunu mag bi nga xam ne moom la ñu tuddee Abdoul Wahab professeur la woon fii ci euh, université yaakaar naa jombul xale yi jaar nañ ci loxoom ay weer 1987 88 kokki googu la nekkoon di yalwaan ba mokkal alquran jàng arab ba dem Bagdad bi mu fa defee licence am la ñëw France bind teesu doctorat am door a jàll Allemagne fa tabaarakallaa bi mu ñëwee fii ci département allemand la doon jàngale. Mhm. moom beneen madame bu ñu doon tuddee Simone moon yi li mu formé ci ay cadre ay docteur mhm. euh, yàlla rek xam na mu toll. surtout nag euh, fànn gi nga wax muy secteur informel. Mhm. li ci kooki formé fa tabaarakallaa. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf. Matar yow yàggoon nga ak moom ci région de Kaolack bi xëy na ci jaar-jaar yi itam am na yoo xam ne peut-être mm-hmm. euh, xam nga ko ci mm-hmm. moom jiite woon nag kuréel gi ñuy wax ligue islamique l'union euh, de maîtres coraniques mm-hmm. bu Kaolack euh, yaakaar naa ne sorteem bu mu njëkk a def ci Sénégal ci Walfadjri à man maa ko couvrir muy seen ndaje bi ngeen doon def pour di xeex ni ñi sonalee nitu daara nga jiite woon ko ñu defee ko lew na kaneen bi nga xam ne dañu ko tëj kuréel googu it yaa nga ko doon doxal. ndax ba léegi yaa nga ca wala. waaw kuréel googu ñun ñooy ñi euh, ko fondé. 1992. Mhm. mu tuddoon jamaatu ahli quraanil yi wa na mhm. biñ demee nag bay tànn njiit lu ko jiite man mii lañ tànn. Mhm. waaye comme dama xam sama bopp ci bëri ay activités ay déplacement comme ni ma ko waxee woon léegi ci gannaaw. ñu ma tànnee unanimement laaj leen léegi dama doon sàkk